baal ñëpp xam ñaan sunu borom boo leen jéggal di jiital ci ziar bi kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew Cheikh Souhaïbou Cheikh Mourtada Diop sëriñ Cheikh ak Fatickal mu ngi mu jaane mboolem Fatickal bi di ci teg bopp yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Cheikh Moustapha di baal ñëpp xam ñu jóge ci bis boo xam ne. wala weer woo xam ne weer bu màgg la ci suñu borom muy sahru ramadanul mubarak di gën ci xeetu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ci la ko jàngale muy benn laylatul qadr di nga xam ne moom la yàlla jagale xeetu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ngir bëgg leen dimbali da nga topp mooy alkitaabul aziz alkitaabul bu màgg boobu di alquran inna anzalnaahu fi laylatul qadr la yàlla wax yaamaa ko wàcc ci laylatul qadr boobu nga xam ne mi ngi nekk ci inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin maa ko wàcc ci barke ci guddi goo xam ne bu barkeel ramadan alladi unzila fihi alquran weeru kon dana jaaru bu ñu bëggee waxtaan ak bokk yi tur alquran ñu dakk bis bi nga xam ne mooy bisu iidul shahru ramadan muy indi fët ñu bëgg a fàttali téere boobu ak soloom ak jullit am lu gën a màgg ci moom alquran léeg-léeg réeree ko moom téere bi dana tax nit ki uti feneen lu mu mën si doon te fekk ne bu ko jàppoon ci téere bi am ko te biir waxtaane ramadaani nga xam ne dañ koy def ci biir ak mu jot ci lay tànn waxtaan bi nga xam ne ci lay waxtaan ak boobu bokk julli damaa tànn tey alquran ak sëriñ bi lu mu defoon alquran lu ko alquran def lu mu digleen mu def ne alquran dafa wax ne kitaabun bihi mashatu mustagniyan bihi غريبا وانسان المصيبات والكبات téeram alquran booy mooy téere bi nga xam ne bi ma ci jàppee te doy loo ko du soxlawu ma leneen nekk ci àll bi gisuma kenn xariban ansaani musibaatu wal kabaati laa mujj fàtte musiba yi nga xam ne ñoom la ma tubaab yeeg noonu yi di def ak mboolem jafe-jafe adduna mujj yëngatuma ko ndax wéttali bu bi ma wéttali bul alquran mu teg ca ne wal taj'alil qur'aana unsi abada wa farahi wa xaadali ilal huda yàlla it na nga def alquran muy sama wéttal ba faw doon sama mbég doon ki may ommat jëmeme ci nit kon noonu la sëñ bi defoon alquran mu ne waj'alil kitaabaka daliili waj'ali sadri wi'aan li hadiisil mursali waj'alil kitaaba daliili yàlla yàlla na nga teg sama def alquran muy sama wamma sama gidd bi nga xam ne fu ma jëm moo may ummat nan ko def mooy alquran mu teg ci rek kitaabuhul azizu saara wirda lii wa nafa anni hidaaya tarda yàlla defal alquran muy sama wird bu ma am soxlaati ci weneen wird muy wird wépp boo xam ne jox nga ko nit ku baax naa far yem ci alquran mu teg ci rek yaa kitaaban karimu anta habibi yow alquran yow laa mujj def ngay sama soppe wa xalili yaay sama xarit wa kunta qablu tabibi sa yëpp bu jëkk ba léegi yaa ma sama nekk sama docteur mu nekk anta izzi alquran yaay sama tedd nga sama teraanga yaay sama daraja yow alquran anta sama alal yaa baxra kulle la bii bil képp ku amul xel daa waroon def ni man def la ab sagam di ndawam yaa kitaaban yow téere bi yàlla bi nga xam ne bii ku naa jiimu jiiban su ma soxlaa yàlla bëgg a wax moom ci yow laa koy jaar saa yu ma bëggee diisoo sama borom aw ma feneen ma koy jaar pour ci yow alquran li yaquudu lladi yusirru naqiba yaa ma woon matal li nga xam ne bégloo la képp koo xam ne boromam xam nga kon sëñ bi noonu la defoon alquran moom daf ñu ko alquran def dafa wax ne bihi surtu min rabbi li rabbi muwahidan wa hawli nasara wal buhuru tamuru bihi surtu ci darajay alquran laa mujjee min rabbi jóge ci sama borom delluwaat ci sama borom kon sëñ bi dafa waxoon lu rëy dafa wax ne damaa dem ci yàlla yàlla tegtal ma yonent bi sallallahu ma buntu baa ngi nii dama maa jaara ci ginnaaw ku doon ku ñuy wër dellu sëriñ bi nee na ci alquran laa ko jaar ci alquran laa jaar ba ne rëpp ci sama borom sama borom ne ma nag da ngay dellu ci yottame nasallallahu taala alaihi wa sallam lii surtout min rabbi di rabbi mu wahdidan wa hawli nasara wal buhuru tamuru te ba ma koy def nag ay nasaraan ak géej guy duusu lekk laa ko lekkaloon keneen wéttilu ma ma jàpp ci alquran ba sës ci yàlla mu ne tamassaktu bil hablil matin murabtiran maa jàpp ci alquran bi nga xam ne mooy buumu yàlla ji dul dog wa bil urwatil wusqaata mooy gàpp gi nga xam ne bu doon courant ku ci bëgg dañ ci jël mooy fas bi allati hiya nuuru mooy joxe leer moom al alquran noonu la ko sëñ bi noonu la def sëñ bi mu ne ij'al kitaabaka ma'i haysu akun ba ko sa alquran defee noonu moom itam mu def noonu alquran dañoo mujj taqoo nag ñoom alquran ak sëñ bi mu ne ij'al kitaabaka ma'i haysu akun yàlla yàlla nga def alquran fu nga ne mu ne fa kara moo koy wax fii nee naa loolu yomb naa misaal ndax daaree kaamil kër sëñ Tuubaa seen kër sëñ Tuubaa la am dëkk sëñ Tuubaa la am su seexub sëñ Tuubaa am njabootu sëñ Tuubaa kër kër alxuraan am am fa kër gi yaakaar naa ne dëkk bii dawaa laa ñi fi ëpp dañuy jàng alxuraan ci seen kër bëri kon mu ne ij'al kitaabaka ma'i haysu akun fu ma nekk na fa alxuraan nekk yaa man lahu bihi ilaahiya rakun rukun yow mi nga xam ne ci yow laa jàpp ba yàlla mujj dekk fi mujj féete wa zayyanta zikrika li umriya kama yàlla yaa def sama dund muy taaru alquran dem na ba sëñ bi dundam mooy taaru alquran zayyanta ni bihi muhabban muhkama yàlla itam yaa ma taaral ci darajal alquran ba ñëpp bëgg ma mujj lu ma wax doon ko mu tekki anta alladi yow yàlla yaay ki nga wattal masaahif as-sihaah fu alquran wére ci man la jëm loolu lu leer la jamono yi muy dund ku bind kaamil te bëgg koo jaay njëg ku sell da koy bind ba mu ba mu ba mu set nga topp ko ba moom nga yëg ko sëriñ bi moom yàlla dimbalee na ko su ko tegee ci dënnam ñaari minute mu xam bu ci maska tam mais wala bu ci ab yàq ko su ko defee lan la cay jox boo bindoon fukki téeméeri ak te kaamil jox ko keneen ku la ko ta jox loolu yi wa saxaa ci alxuraan laa jàpp boo mujjul am lu wér ne sama borom ay sama borom te féete woonam fare woonam ملتني الكتاب فاحفظه بيا وعمري احفظه به يا ربي yàlla yaa ma moom loo alquran kon na nga ma def may kii wattu alquran xam nga yàlla moo wax ni alquran ne inna nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisun maa wàcce alquran damaa koy sàmm sëñ bi ne nag yaa ma moom loo alquran def ma ma koy sàmm bu ma ci kon nag ni nga ma koy sàmm moom itam na may sàmm moom alquran moom la wax ne kitaabu rabbi wa kuntu alquran maa ko fi nekkal moo ma kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillahi bihi sakantu ca laa mujj ba dem dëkk ak yàlla nag fa ci alquran laa jàpp ma nekkal ko mu nekkal ma ñu nekk ci ñun ñaar ba mujj ba far ci yëg yàlla mooy jaawatu ci daraja alxuraan la ko def ko taxoo nii la ko alxuraan defal nag bi ñuy gaala xam mi ci darajay alxuraan laa dem ba amatu ba naqar ba amatu ba naqar bii xam mi yii na am saktu huubu daal bi nga xamee jàpp naa ko def ko muy sama njub te laa dem ba dootuma yaa dootuma kii sa aadi bi hii nafsi te alquran laa jubbantee sama bopp bu bare kot wa aadi bi hii sax baa ñi ma àndal ci laa leen dugal mu ne askuru llaha bal wala bintifaai bi kitaabin saaxal ida biddifaai maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ma indil alquran ba mboolem képp kuy sama noonu yàlla dàq na la ci barke alquran yi mu tekki ne azhaba dikru maliki kulla shakkin ci alquran laa dem ba amatu ba sikki sàkk lu ma def lu wér ci alquran laa jàpp ba amatu ba sikki sàkk lépp lu ma def lu la dootu ba taxoon xam nga waxoon na ko nee nañ li ma wuteeg sëriñ si ñoom tamit laa dañuy lamb man damaa def xam nga looloo xool nee ko moom la gis na day lamb yàlla man na dama ko def kon ci barkeem alquran la ko amee dane adhaba dikru maliki kulla shakkin wa li gayri sabbal ida bil qimaai képp kuy noonu ay noonam di song di ko nar mel booba alquran dafa nekkut man kenn mënu maa dee teer mu teg ne askuru askuru rabbiyal azim maa ngi sant sama borom mi nga xam ne moo màgg ala kitaabihi al hakim ci téeram bi nga xam ne moo fe moo fees dell xam-xam wa fustu fiihi bil ulum maa nekk ci alquran ba mu di fees dell ak xam-xam xam-xam boo xam ne tufhimu za talaffumi képp koy wax boo asee boo waxee yoonoo huwa alqalil wal habib alquran moom laa def sama xarit def ko sama foofu lii moo li yan lii an tabib moo tax kenn mës ta dégg ba foor wala séer Sëriñ Tuubaa bihi yuhibbu lil labib ci laa mujj dem ba ku am xel bëgg ma yatlubu xayran la xamee képp ko xam ne day sàkku dara ci yàlla lan bu rëy képp bu bu bu bu mag ku ko soxla ci Sëñ Tuubaa ngay ñëw yaa xayral munzilin yuri yow alquran mi nga xam ne yaa ma mujj waat maa xaaba za tadabburi lépp lu la sëriñ maa moo xamul kumpa di wax loo xam ni ba nga ko waxee léegi mat na téeméeri at ak nangam fanam sañu koy def allamtanil xayba boobu yàlla yaa ma wax yaa ma wan kumpa lii ñëw ak la ca kanam ba yow la xiyam xam naa neen ci barkat alquran laa ko xam yaa xayra munsilin yuri yaa ma yàlla yaa ma wan maa xaaba te lépp loo xam ne fàttu na saa tab dab buri ngir a rabbi yu fi kër yi yàlla moo teeyal samay xalaat kenn ku nekk da ngay xalaat ba noppi di ko analyser waat sëriñ Tuubaa du bi bi xëyri tuhami moo tax dem naa ci yow ba kenn mënu maa tuumaal lu ma njortu ba ne noonu la noonu la du mu teg ni innal kitaaba wa rasulu sabadi adir tafaa kulli bi xëyri amali jàpp gi ma jàpp ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñëpp ci alquran moo ma yëkkati som yëkkatil ma mu taw sëñ bi xëyri amali yàlla wax ci alxuraan ne maa yëkkati asamaan te amul amul ay jàmm Sëriñ Tuubaa maa jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci alxuraan yàlla yëkkatil ma yëkkati ma yëkkati sama lépp kum lii la wax ni njaboo garab di mel fa ñu àgg ci kaw kenn yóbbuwu leen fa yàlla la ko yóbbu ci barke alxuraan day yana di zikru fu aada muhtalin képp ku jub yàlla nooyal na sama xol ci dara yee alxuraan li siwaaya saaxa kulla mu'tadin képp ku jëme ak yëkkateeti ak tooñ ku dul man ki barke alquran ba te jëlee naqarte ni yaa maalikil alfarda yàlla yaa ma dee mbooti alquran wa bii turaqi xisbaka alxufaasa yàlla ci mën nga def képp ku mokkaate alquran te bëgg a jëm ci kanam ci la nga fay jaare maa la yëkkati loolu lay kaanu kese mu ànd ak Serigne Touba foo nekk yaa fay defar sa bopp lépp Serigne Touba moo ñëw képp ku mat alquran boo ñëwee bu bu noppee ci bu delloo nit ña ñëw ca yow te duñ la laajee sax alquran loolu moom ma ñaaw maa ngi Serigne Mor bi fi jóge leeral la ko mokkal alquran ca bawam ba fii mu ne nekk taxut yàlla dox la teraale ay abdoulaye abdoulaye allah xanaa nga àgg Serigne. mu ne wa yassiril qur'aana wal hadiisa yàlla yaa ma yombalal alquran ba ma dégg ko ma teg ci hadis li wakun lii bihimaa muqifa te yàlla jàpp gi ma jàpp ci alquran ak jéggal gi ma ko dégg la yaa ci nga ma mujj def ma mujj xettali waayu doomi aadama yi alquran gi ma jàpp ci la mujj def ku bëgg a xettali ku ci man ngay ñëw ma xetti la ak koo mën a doon la mu ne la jawwtu rabbiya wa haqqaqa rijaal yaakaar nag sama maa yaakaar yàlla ba noppi mu mottali ma sama yaakaar sama yaakaar fas ci moom lii biir kitaab yi ci darajay alquran wa kafa niil xaraja moo ma fegal lépp luñ naan loolu doy na waar sëriñ Tuubaa amul lenn lu muy def dinaa looloo ko day waar xaraj lu garaaw li tubaab daal garaaw sëriñ Tuubaa amu ko lu bokk sëriñ Tuubaa amuñu ko mu ne wajjahtu kulli lil ilaahi bil kitaab maa jóg jëm ci yàlla te jaare ko ci alquran waxaana lii mu ju ma jox al mu la lépp lu ma bëgg la bilaa itam su am tariya daal loolu lii la ko yàlla defal ci barke alquran kon lu ko yàlla fegal ak lu ko yàlla jegal ci barke alquran mu ne anta zaadi ilal jinaani wa nuuri yàlla yaay sama yóbbal yaay sama leer ak alquran yaay sama yóbbal yaay sama leer xam tan na faytal lahiina zitta duhura yaa ma dàqul Ibliisa ba ñemeetu ma song yaa ko nërmet sama kanam ba ñemeetu ko ba nga tëdd. yaa kitaaban kafal ida wal ana yow téere alquran yaa ma fegal eh, ay noot te yaa ma fegal coono waxuma la sëñ Tuubaa waaye képp ku bopp sëñ Tuubaa dootoo sonn ba ma ne alquran. yaa kitaaban kafal ida wal ana ak coono du dal sëñ Tuubaa du dal bokk sëñ Tuubaa ci dakk alquran kadru ziktur rida man nga jox yàlla yàlla jox na ma ngërëm dibi ci dara jaay alxuraan war anaa ak ak moom alal ji ma yor du jeex li ma yor du jeex man ko amee ci barkeb alxuraan inna tilaawatal kitaaba sharafa jàng ji may alxur jàng alxuraan moom moomu ci dàqul li xayri dur diyal ila fan sarafa boo leen nii njëkk bu woon donc maa song ñoom ñëpp mu ci dëpp ndax ci dara jaay alxuraan mun a dikkiru wan lil ilaahi bil kitaabi xaala jàng may al jàng alquran ak topp toog gi way doog téeram yàlla bi ñoo mujj dox bay nii wa bay na al ilaaya bay nii wa bay na maa yasu hara zikrul ilaahi bil kitaabi hara bay nii wa bay na maa yasu hara zikrul ilaahi jàng jàng gi may jàng alquran xaara moo dox sama dig wa bay na ak digal te képp koo xam ne wala lépp loo xam ne yas mu dama doon naqari amatuma woon naqari fàttali ci barke alxuraan teg saa si la nga koy def saa yi ma jàngoon al jàngee alxuraan lépp lu ma waroon a naqari day daal di jeex kon loolu la sëñ bi alxuraan tegal ko moo ko ñëw moo tax sëñ bi yéen ñu bokk ci man amu leen lu ëpp alxuraan kullu muridin bi yalu sufal judim tilaawatan li xayri zikrin qad rusul képp koo xam ne da ngaa aju ci man na ngay jàng na nga takkoo di jàng alquran yi nga xam ne lu ñu mas a feexal wala ñu mas ko bind moo ko gën moom mu ne fa huwa sabilu fa huwa sabilu alladi maa fiihi min iwajin mooy yoonu yàlla bi nga xam ne amul fooy jaar alquran mooy yoonu yàlla bi nga xam ne amul fooy jaar dafa jaral rek la ci yàlla fa huwa sabilu alladi maa fiihi min iwajin liman yasiru ila almu'ti rasila الرقيبات فهو السبيل الذي ما فيه من عوج لمن يسير الى موطي الرغبات mooy yoonu yàlla mi nga xam ne amul fooy jàpp boo jógee ci yàlla mi nga xam ne lu waay bëgg moo ko yor benn yoon la ba àgg ci moom amul fooy tamit amul fooy jàpp moom alquran mu ne huwa shifa min kulli daa ku bëgg saafara jàppal ci alquran li man alayhi abada képp koo xam ne jàpp koo ko te doyloo ko wa man abaahu turida képp koo xam ne dangaa bàyyi alquran des na la dàkku saa xasratin tey tamit rëcc saa wala tamit tey da nga am njaqare da nga am rëcc képp ku fi bàyyi leneen jàpp ko alquran da nga rëcc bu ëllëgee mu ne huwa alladi man ihtada bi hadiyihi huwa alladi man ihtada bi hadiyihi naala alhuda يحتوي الفوز غدا ذا عصبة من نخم هو الذي موتي بك خم من اهتدى بهديه كيف هو خم دغا جيب اك يوم دف مسلم يحتوي الفوز غدا الذي دغا موت دغا تابع الجنة ذا عصبة دغا موت تي الجيب لو خم اي جافا جافا اخ جافا رك الله من الله من هو الذي من اثبت فيه هو الذي من اثبت فيه ولم يلتفت ذا عمل يكن فتى عند شكور شكور الأكرم moom téere booy mooy ki nga xam ni képp ku ci sax man asbata fii ku ci sax ixtawa maa qad kafa da nga làq li doy sëg da nga am loo xam ne dootoo doyet kenn leen war doyet doyet kenn leen wala yara xii ku la faa tey coore jeex na ci yow yoo xam ne dooy azaa dafa jóge kenn ku la bëggoon a lool bil kaarama ci daala day yàlla nga xam ma waat yoo tax mu teg ci ne kitaabuhu azizu kitaabun azizun yaa laa yuraahihu aabidun téere la bu mag boo xam ne képp bépp jaamu yàlla boo xam ne da nga koo jàpp te téew wa yatluuhu illaa waxtawa an fatha wal qurba kitaabun azizun laa yuraahihi aabidun wa yatluuhu illaa waxtawa al fatha wal qurba ci rabbi mu ne kitaabun azizu téere bu mag laa yow daa ay kenn sàmmanteeg moom téye ko aabidun ngay jaamu yàlla wéyat lu dëkke koo jàng illa tawaa lu dul yàlla dana la jox fat bu bopp du ëpp bi wal qurbata yàlla yi dana la xëcc ba ca yàlla ci bopp mu nekk da kon fa tuuba li abdin yabudu llaha rabbahu tuuba ëllëg dana ñeel bépp jaamu yàlla boo xam ne day jaamu yàlla tamoon koy jaamu yàlla man ko jaam bil qur'aan ci alquran li tartiili qur'aan azimin yaqil karba alquran bi nga xam ne mooy fekk nit ki bu am ay jafe-jafe fii ci àdduna kar ba ñàppal wala tiit fii fi àdduna dox dox diggantee ba moom bu ëllëgee ci àlla kon ëpp naa dem ab jullit mu sàggane alquran rawatina ab taal bi moo wax ne waman yur wuslatan lillahi mun sharifa anhu faqad faatahu hablul wisaalaati waman yurid wuslatan lillahi mun sharifan képp koo xam ne da bëgg dem ci yàlla ba def a fi alquran yow yaa ngi ne yàlla la wër ba def na nga doo laal alquran doo ko jàng benn yoon nee na joboo nga tooy tay da ngay perdre sa man yurid wuslatan lillahi munsharitan an faqad faatahu hadlu risalaati bu nga jokk ci yàlla nga xam ne ci la gaa yi jàpp yi dem yow danga koo bàyyi da ngaa mel ni nga dem ci câblage ba ñëw indi ko sa kër doo am da ngaa jaar feneen fi ñuy jaar fi yàlla mooy alquran mu ne waman lam yakun daban bihi saata masukin képp koo xam ne da ngaa dib pour nit wala nga dib taal bi nag ka fonkoo alquran jàpp ko faqad xaadahu iblisu man lam yadil xibba da nga xam ne seytaane la ma nga dib taal bi da nga di julli fonko alquran bëgg ko amoo ci yitte yonent bi sallallahu taala alayhi wa dafa waxoon ne nag ñett ñi dugg génn wala ngay jàng alxuraan wala nga bëgg ñu jàng alxuraan te buñ nekk nekk te li nga def mooy ñu amul ci ñoom soxla loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk rek booy na nga am nga am la nga teg mu tekki loolu huwa alladi man adbara alxuraan mooy xam ni mooy téere yàlla bi nga xam ni jullit bu ko wan ginnaaw adbara an huwa ma tadabbara tey amul du ko jàng mukk di ko seetantal asaar kon waraa loola mu def rek mooy yàlla la dèjà nga def julli ba noppi amoo ci te alquran di jéem a nam nag dimbalee woo ñuy jàng dimbalee woo ñuy jàngale saw yoon nekku ci alquran ban nga gën na alquran loolu nga def dèjà non mooy yàlla dèjà mooy yàlla. addu xaw katal li lu wamee bu yow mal xiyaamee dañ lay joxal naan kee ab jullit la nga neera te mos na am si sama alquran ñëpp di la katal. ñëpp balay mocce ba yomal xiyaam jubluwoo mi ñeel ñi nga xam ne dañoo fonkoon alxuraan bu ñuy texe alxuraan di leen dimbali yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ñaar dañuy romb bu yomal xiyaamee alxuraan ci danañ kii maa ko a dox yitteem ngir di ma jàng koor ne a lekk a a ne bu yomal xiyaamee du ñu bindal te dañuy i nit kon ñi nga bu alxuraan ñëwee du am ay nitam yow ñoo ne dañ lay mokkee ñi nga xam ne noonu la jullit di mokkee yomal xiyaam ba yàlla yàlla nekk wa kullu saxsin alxada mu def nag koo xam ne da ngaa jël alquran di ko koyee képp ku jël alquran jël ko sax caay caay sëñ bi nee na wa kullu saxsin alxada fii walam yejtahida bi tawbati mu jookoo tóob laa xar voda ci saasa nga am loolu moom yàlla wane na ko ba tay amul nañ ko ba tay ci télé yeeg dégg nañ ko ba tay ci seen nopp ñaanu waay ci alquran mën a jëmee alquran yonent bi mën nga koo dóor ba dam sallallahu alayhi wa sallam yonent yi naa bi ñuy tuumal loolu yàlla mënoon nañ koo dóor ba dama ko daa daw yàlla ko yëg ak xóot ànd bi ko yàlla teg ne maa koy sàmm ku ko laal mu laal ku ko laal rek mu laal mu ne wa kullu saxsin alhada fii walam yettahida bi tawbatin daa xarrora ci saa si ngay am ci saa si ngay am min rabbihil muntaqim ci kattanu suma borom mi nga xam ne mooy muntaqim muntaqim tur yàlla moo xam ne bu bëggee fayu ci jaam moom lay jëfandikoo وتجرى وهو الهدى والصراط المستقيم لنا القرآن موي أبجب موي سنيور الصراط المستقيم فكل من عافه كيف وهم لغا بيت القرآن لا خاص شقا واجد دغا تخي أد تخي لأسنة تدغا تخي لبيا والخيام وهم نوخو داتي القرآن fii ngay tàmbalee torox pour yow man xëy na nga daw dara tàmbali torox kon moo tax sëñ bi woote ci ne taalibe yi lépp lu ñu bëgg ak lépp lu ñu sàkku ci sama barke nañ koy barke suñu borom nañ ko jaaree ci alquran moo gën a gaaw kitaabu zul jalaali wal ikraam téere bi yàlla bi nga xam ne mooy borom mu màgg ca kawe fii jami'i sublu subli wal malaa'ika jangde fihi jami suhli wal marami kitaabu zul jalali wal ikrami fihi jami suhli wal marami lépp loo xam da nga koy laaj yàlla ak lépp loo xam ne da nga koo xeeme moo xam muy ajjana muy li nga xam ne mooy laaj bi gën a mag ci ab jullit mu ne barakatul kitaabi faaxat zanna barkeb alquran xel mun koo daj ku dul yàlla mi nga xam ne nit mënu koo xalam ba xalaat ko xam ko déedéet amul fa fiihi maa anil warastakanna li nit ñi di jéejoo ak di ko xëccoo di ci dëkk ne napp na bi alquran a koy wax mu ne rum bi tilaawati lkitaabi ma tusha min alladi yafalu kulla ma yacha rum bi tilaawati lkitaabi ma tusha lépp loo bëgg nag lu mu mën a doon rek na ko jaar ci alquran la wax sëñ bi wax la ma tusha lépp loo bëgg min allazi yaf'alu kulla ma yashaa ci yàlla mi nga ne lu ko neex mu def li nga bëgg yàllaa ko yor moo ko mën a def boo ko bëggee fi gën a gaaw mooy alquran ne lépp loo soxla rek laaj ko yàlla te jaare ko ci alquran ndax yàlla mooy yaf'alu ma yashaa ko def leen itam ma tashaa alquran ci gaaw mu ne biee mi ngi waxtaan bi de biee ay na fuduula dañ ko mbay ngay perdre temps ci àdduna ci loo xam ne da ngaa def ne da lay jural njëriñ sport beeg réseaux sociaux yeeg yëpp jàngoon alxuraan bu gën ci yow ndax mooy defar sa def sa àllaaxira defar sa àllaaxira da ngay connecté di jokkoo ay nit defe ne loolu la ñuy faj say aajo yi jokkoo wala sonn borom ci lii nag bi nga xam ne mooy alxuraan moo gënoon a gaaw bi en fudula dañ kumpa bañ kumpa ku nekk nga yër fa lu nekk nga yër ko boo toogoon jàng benn fiqa benn bind xul tay am yéene xul huwa allahu ahad ngay wax moo ko gënoon ci yow te ilfuduuna bi tilawati lfiqar tafus bi ma yunsil xuyuula wal baqar benn ay alquran boo ko jàng yàlla dana la ci defal loo xam ne buñ la joxoon saawo la an képp diri fas koo ma noonu la koy wax indil moo ko gën ci yow wala yàlla joxoon képp ci nag képp ci fas ba mu fees del benn aaya alquran boo jàng moo gën ci yow ndax day defar sa adduna te defar sa àllaaxira dana wax yow nag mu ñëw defar sa adduna ak sa nga faatu bàyyi ko def mu ne sawaa bu man yaqra'uhu fil janna alquran tuyaabam ku koy jàng aljana mooy sa ku dëkke alquran di ko jàng sa tuyaab mooy tàbbi aljana daaril qaraari wal munaa wal minna dëgg nga xam ne ku fa dem jaaxaan ngay def amatoo soxla amatoo aay lépp lu ñuy bëgg faral ko farale mu ne dum yaa aqi ala tilaawatil kitaab yow mi nga xam ne sama mbokk ci sama tàll na taalibe na nga sax ci jàng alquran fa innahu yakfi al azaba wal itab yàlla da nga dox sa diggante luy cooree adduna ci mbugal bëri tabu yowmal xiyaama kenn du la yem mu ne nit awliyaa yi dañoo daje war a seen borom di ko ñaan ne ko dañoo bëgg bu yawmal qiyaama buñ ñu dugalee ci bàmmeel yàlla jox ñu lan mooy layu ñaari malaaka yi awliya yëpp dañoo def délégation ñaan seen yàlla bu seen borom ne leen dañoo bëgg nga déeñu bu ëllëgee ba ñaari malaaka yi fekk ci bàmmeel lu ñuy toll sëriñ bi nee na bi wàllu yi dajee suñu borom dana leen jàng leen alxuraan jàng leen alxuraan rek wa talabu jawaaba munkarayni min xaaliqi daarayni wal xayrayni wa wajaduuhu fi tilaawati l kitaab wa huwa fiihi duuna zajrin wa itab bi awliyaayi laahi yëpp dajee ne yàlla dañoo bëgg kat ñun bu ñu demee yawmal qiyaam buñ ñu robee bañoo am sax yawmal qiyaam malaaka yi bu ñu waxee ñun buñ ñu tiit zëj la këdd ñu ñu tiit wala itam wala ñu ñuy yedd dañu wax loolu bu mu ci am nañu waxee ñu daal di tontu ñoom dina teel benn heure sa carte de jour dañuy def immigration nañ ko xool rek daal di muy bàyyi ñu daal yàlla ne leen amul lu ci gën a gaaw lu sama téere boobu jàng leen ko rek boo jàngee téere bu yawmal xiyaama boo boo duggee ci bàmmeel moo doon saw rek watalabu jawaaba munkarayni dañoo laaj yàlla dafa jox ñu tontu munkarayni ñaari malaaka min xaaliq daarayni yàlla nag mi nga xam ne moom bind adduna bind bàmmeel bind àllaaxira moom lañ ko laaj kon xayra yi moo yor yiw adduna yor àllaaxira yàlla moom moom lañ ko laaj yàlla ne leen wa wajaduhu fi tilaawati kitaab ci jàng alquran la ne wa huwa fiihi mi ngi ci biir alquran doona zajrin boobu ngeen biir bàmmeel kenn du leen gën wala état te kenn du leen gën malaaka yi du ñu bu ñu ñëwee du wax lu loola ne kon ab taal nga ne fonk alquran nii la sëñ bi defoon alquran nii la ko alquran def nii la ñu taxawal lii la ci joxe kon ku sàggan ba jàngoo alquran am na la ko waral sëñ bi ko wa man yamin anhu في الأوقات معتزلا فإنه سده كثر الرذيلات ومن يمل عنه في الأوقات معتزلا képp koo xam ne da ngaa jeng joy dem saw yoon bàyyi fi alquran beroo fa innahu saddahu na xam ne la dox digganteem ak alquran kusru rasilaat bi bari ay fakkatal rek bari ay ñaaw jëf rek la bari ak caay-caay bu nekk ci moom képp moo dox digganteem ak alquran na ko xamal boppam kenn fa saddahu anhu la dox digganteem ak alquran to addu ila borom xam-xam yi wàññi ne lañ ko ba mu mat mat sabarosa ila juróom-ñaari ñaaw kéef yoo xam ne ku mu nekk ci yow doo jàng alquran afatin ay gàkk la yoo xam ne rasila yu tilima tilim la ko tax doo jege alquran dax alquran tax xool ko ci ñun ñi bu ka jógee ci atelier mi tay bu la jegee nga bu jógee ci atelier ba gat bu la jegee nga daw bu jógee ci suudóor bu la jógee nga ndax bu ci nekk da lay taxal te bëggoo tax alquran du tax lu jege tax juróom-ñaari koo ngi nii yoo xam ne fu mu nekk ci yow sëñ bi nee na doo jàng alquran ba ca ñett mooy zan bu ñu bari bakkaar doo jàng alquran wa kibrin nit ku rëy rëy rëy du jàng alquran wa israarun ala labi alaay bi ku nekk mu kàlla ba noppi foo toll nii foo doo jàng lool doo bëgg doo jàng alquran ictimaadun lil xaliqaati ku fi bàyyi nit ñi doo jàng alquran alquran da lay bay yàlla lañ yaakaar kenn du yaakaar doomu aadama yi ene zanbun wa kibrun wa israrun ala laibin hubbun li din yaatimadun lil xaliqaati mu ne kazalika doxful yaqinin képp koo xam ne da ngay sikki ya sàkka ci am sa borom doo jàng alquran man jëmbalaa sama kàttan ne sama foto na nga ciy sikki sàkk ba xam man laam jét ba mu amee fële koy foqati ne la nañ ca nañ jëm nañ jëm nañ jëm ca sa biir da daa yore mooy wax ndax gis a ngi am kon bis sikki sàkk ci amul yàlla am dut ci yàlla gëmoo ak kàddoom koy jàppe da ko jàpp da moo ni kii kàddoom la kon ko sëñ bi amoo yitteem ndigaleem bu ko joxee noo koy defee da ko def kadalika dox bu ni ko sa yaakaar ak wóolu woo wóolu sa borom danga kenn mënal dara na la dara te du kenn mën na laa dimbali ku dul yàlla wala amul yàlla yan ci am sikki sàkk wala yenn ci meloom yi yan ci am sikki sàkk boo ko defee doo jege alxuraan alxuraan la ko wax ba saa ji soxaata moo ko juróom benn neen danga ne ko sabba'uha bi taktiir ibtidaa'aat nit ku bari bidaa bàyyi fi sunna topp bidaa doo def dara dara dara dara loo xam ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko def te da ko wax léegi léegi xutba bi ne maa aataakum rasulu faxuduuhu li yonent bi defoon yee leen ko rek wa maa nahaakum anhu lépp lu mu ne lii na ko fi bàyyi bidaa la feebar la na ngeen ko fa wala ko fii rasulillahi iswatun hasana yonent bi laa fi tam muy seen roy téem ku ko fi bàyyi di roy leneen wala ngay jàpp leneen alquran te la lay ba ndax kitaabun karimun min karimin mukarramin bi abdin karimin alquran nekkam yonent bi tax ba ko yàlla wàcce bu amutoon ndam lu mel ni bi sallallahu alayhi wa ku góor moo tax keroog ba mu jeexee al yawma akmaltu lakum alquran mat na Babacar jooy xam ne kon jeex na ndax lay def la muy dox bu fi nekkatul la fi dox di utee tuuti kon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ku ko fonkul fonkoo sunnaam alquran du la jege doo jege alquran yal na yàlla sax ca alquran yal na yàlla dimbali dégg alquran yal na yàlla bëgg loo alquran salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jëf